di leen wóor ne tafaay bamba dooma xam ne moo namp ci meenam ba fer ba matwaay ku koy weddi ne ba bamba wuy jéem ñu toj kër ga ca njaareem ne dund day jéem aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin mbokki julli di mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, yéen a ngi ànd ak seen yéen a ngi ànd ak ñun si seen site internet Ahibahil Khadim TV eh, ci màggal Serigne Touba gi nga xam ne ñu ngi ko defee ci Touba Darou Khoudoss Euh, ñu nekk fii si jumaay Serigne Touba ji euh, ci barab di jàkkaroog nii barabu Cheikh Mouhamadul Moustapha euh, moom mi nga xam ne moo fi andoon ko tedd ki di Serigne Touba bañ koy fàttaliku ci bisu tey jii nii mu doon noonu digal loo xam ne moom moo ko joxoon Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Moustapha doon ko wéyal ba tey nim mu ci toogaay Serigne Ahmadul Mokhtar waaye sëtam bu baax bi. Eh, jëwriñu ñu baax ji di sëriñ Mouhamadul Moustapha moom sëriñ Mbacke Mouhamed ah, moom tamit di ko taxaw taxawaay bu am solo ànd ko ak mboolem ñi nga xam ne ñooy daayira Ahbal Khadim ak ah, mboolem jullit yëpp Euh, ñu ngi fii ci barabu sëriñ euh, euh, ko gisee nii rek ci image yi nit ñaa ngi di ziar si mbooloo mi macha allah fépp foo génn rek ci dëkk bi mi ngi fees dell ak i doomu aadama ngir ñëw ziar si ci li nga xam ne mooy barab bi di barabu Cheikh Mouhamadul Moustapha ak barabu sëriñ Touba Xaadimal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kon incha allah su ngeen ànd ak ñu rek lépp loo xam ne tukki fi rek dangeen ko dangeen ko am ànd rek xam ne jiwu ren mi ngeen bayoon daaw njëkkeel ahmaduna Moustapha Madi Diaw ba ngeen xam ne jiwu ren mi ngeen bayoon daaw te tànnam gala def Moustapha mu dib taaw mu tànnaat ko lu buur tànn weesu naa ñaaw. sëriñ bee nu ko tànnal ci biiri tànniit jiwu tànnut jur buuse mbaate mbeniit sëriñ bee nu ko tànnal ci biiri tànniit jiwu tànnut jur buuse mbaate mbeniit juróom waa ka deppook taabaay ne leen kaar nu njoole aminata gën ku deef yaakaar liifam ya mu tànnoon ca yow ma najwaab bu len peese mu wat leen ci xeeti taqwa li huwa sabqu maal xor bi ne majaha xadim ibnu xadimin rasulita muqiisun wa maleesul wara su booba wasiirun wa imaadul wara xutuuba ne leen góor ne tafaay bamba dooma xam baay ne moo namp ci meenam ba fer ba matwaay ku koy weddi ne seet bis ba bamba wuy jee ñu toj kër ga ca njaareem ne dun bi day jee rum kun téléphone mustawa ca ñaaseen mu ñëw yóbbu ko tuubaa ci kun fa yekkoon tubaab yaag tere tang yaag ci siixi njaareem mu waar leen te defal leen ba ñépp farlu keroog daama ko fal xutbu muy xalifaam jiital ko ci baatin mu donnu lislaam wal waarisu aqan abu taaja huwal xawsu xada lil muridi aja wal waarisu aqan abu taaja huwal xawsu xada lil muridi aja fajal aajo yi faj aajo yaa ko lamboo te fóotal nu ma faasit ya xol ya lamboo karaamay desu xar baax ya yaa mu jébbal la malaanam wéel nga yére yi bamba nga ràngoo mu neefu laa ñaaj te baatin bi nga lamboo mu neefu laa laaj ni leen ndaama yu tooloom du yokku ay biir nanuy daw di ko raamal roy dundu roog biir tafaay bamba dooma xam ne moo namp ci meenam ba fer ba mat ku koy weddi ne seet bis ba bamba wuy jéeb ñu toj kër ga ca njaareem ne dundu day jéeb